xam nga coow li bari na Congo mi jóge fële dañu war a toog seetaat mbir yi fii ñu jëm nag fii ñu jëm ah fu ñu jaar dem de bëgg bëre bañ bëre waaye problème bi mooy boo bëree ba pare bu ñu génnee ci élection yi dafa yeneen yu ñëw fichier bii nga xam ni njaq mi leerul kenn xamul ban njaq la yëf pëndëx bi dana bare ah nañu dem tey xam naa ne nag lu mu mënti mel mel mel mel doomu réew mi nag dofuñu ku ci nekk xam nga looy def man mii di wax sama doom wala suma jabar xaw ma fu muy wate dinaa ko wax ni ma fii laa man waaye xamoo lu muy def